ñoo ñu nuyu di leen ziara bu baax a baax ah di sant yàlla bu baax waaw ah, suñu ziar bi moom ma ñuy maa géré événement maanaam ñëw naa fi dans trois jours ba ma ñëwee dans trois jours dem naa seeti dal yoo xam ne moom la nit yi teddi yi di dal su amee loo xamante ne lu war a nettoyer la dem dañ fa nettoyer ka ba anam bu rafet boo xamante nit di dinañ mën a toog kon loolu yëpp dañuy sant yàlla ah ziar bi moom ziar tànk la te doonu ziar bi yomb ndax sunu sëriñ bi tedd gi al amin moo joxoon waa wakaam ndigal def ko ñu def ko def naa bi mooy septième édition xam huitième macha allah léegi première année bu ñu ñëwee al amin kontaan trop nee na seen mag yi démb yi nii nee na woon def kon kontaan troisième édition deuxième édition macha allah ba ñuy mujj ba ñuy mujjee ñëw fii mu tombé muy taw taw bu metti macha allah ah après al amin si la jox baa waa Wakaam ne bëgg naa ziar bi de doon ziar tànk maanaam ziar tànk moo waral lébu yi la quoi mooy moo tudd tànk sëñ bi ñaan bi nangu na macha allah mais yaa na yàlla yokk leeral tàññi si barkeem. مالك نعم الوسيلة في راحلتي